honorable député ñu euh, maa ngi leen di fay di siyaare ñëpp ñi nga xam ne dañuy seetaan Sénégal ak ñi reprendre aussi élément bi ci biir Sénégal ak bitim réew. Euh, récemment ñu ngi jugee ci installation euh, député treizième législature bi opposition bi ñu bëri di ñaawlu peut-être nee na ñuy dénoncer ni ki war ki gën a âgé moo waroon présider séance bi. Euh, finalement euh, Grand Serigne de Dakar moo ko mujj euh, présider léegi ñoom ñu ne à leur niveau surtout Jean-Paul Diaz moom si boppam sa lors de sa dernière sortie neena na il attaque attaquer loolu noonu au niveau du conseil constitutionnel. dafa am précision yoo xam ne sénégalais yi ñuy déglu ci réew mi ak bitim réew war nañ koy bàyyi xel waxit bu ñu waxee ki wax war nañoo xam kan la. ndax li muy wax defar la ci jublu wala yàq wala yàq xelu sénégalais yi assemblée nationale dafa am réglement intérieur boo xam ne moom lay doxe mooy fixer doxin bi réglement intérieur bi day am lu muy wax am loo xam ni kenn du ko wax ndax lépp xajul ci réglement intérieur loolu boo ko déggee ci loi mooy doon partie bi nga xam ne bii mën nañ koo àtte ci ay jurisprudence bu amee assemblée dani bu ñuy def cérémonie d'installation bi ki nga xam ne kii moom moo mag ci ñi ñu élire ak ñaar ñi gën a tuuti ay at ñoom ñooy présider séance bi buñ koy présider it benn débat mënul am li ci mën a am kay mooy ay fàttali muy motion yi ñuy def ci ay points yoo xam ne dafa concerner installation bi buñ paree ba ñu installé président bi nga xam ne wote nañu ak moom ci la ñuy commencé lu jëm ci débat kon kii nekk président warul gérer sax ay débat képp kuy débattre waruñu laa joxu kàddu bi nu ñëwee sunu candidat Benno Bokk Yaakaar président Moustapha Niass la kayit yi wane na ni moom mag ci ñi ñu élire ci treizième législature moom mu joxe ngànt ni mënula présider ngànt la joxe kon kay bu ki ci mag gàntoo wala mu absent comme Ablaye wàdd wala mu feebar wala mu dee ci diggante bi kafa mag rek mooy présider bi mu fa jógee Ablaye Makhtar Diop moo ci mag moo présider te présider ko ci ni gën a rafete mu dëppoo ak yoon si selon toi lan la woon parce que moom on l'a vu euh, mu ngi mu ngi woon biir assemblée. waaw xëy na moom candidat la bëggoon doon te jàpp na ne du élégance nga nekk candidat ba pare di présider ndax beneen candidat manoon naa ni mu doxale noo xam ne ni dañ naan dafa far wala farfarloo kon bu boobaa dafa war a dem fa candidat yi toog nii leen man am naa ngant yem fa ndax xaw moom lan moo tax waaye jàpp naa ne ngant la am moo tax présider wul bi ñu demee ba fal ko nag te ngant loola deñ mu dem présider kon kooku problème amu ci defe naa ne boo ko attaqué doo am ndam. léegi ñu des toujours ba si assemblée nationale léegi Moustapha Niass ñu gis ni léegi moom moo nekkaat euh, présidence de l' assemblée nationale te au niveau de certains apéristes ñoom ñu ngi woon euh, euh, fësal seen bëgg-bëgg que ni dañu bëggoon benn appéris nekk présidence de l' assemblée nationale. du ay apériste man Moustapha Cissé membre du secrétariat exécutif de l' APR bokk ci ñi sos parti bi xeex sunu parti am majorité bi ci assemblée nationale. man du ma wax di nëbbutu man maa jàppoon ne gëm ni président Moustapha Niass defal Sénégal def ko ci diplomatie sénégalaise def ko ci la république du Sénégal xam ne nit ku mën a liggéey la ku xarañ la ku jub la mais ñun ñëpp sunu nijaay la wala sunu baay wala muy sunu mag jàpp naa ne bu dee li mu def lépp def na ko juróomi at ñu jàppale ko mu yor assemblée national contre la volonté des de la majorité bu APR tey bu législature bi ñëwee jàpp nañ ne dañ ko waroon a bàyyi ñu seet APR boo xam ne mën na koo yor mu yor ko bu gën a ndaw boo xam ne bi toll na ci war a mën a liggéey mu yor ko mais bi président de la république moom mi nga xam ne mooy clé de voûte des institutions te majorité bi moom moo ko moom parce que mooy président bu Benno Bokk Yaakaar wala moo koy coordonné ci à un haut niveau jàppee ne dafa bëgg continuer ak Moustapha pour jox ko assemblée bi mu gunge ko ba deux mille dix-neuf sunu coalition ñun ñëpp dañ cee d'accord ndereedu am na ci ñoo xam ne neexu leen loolu moo am waaye boo bokkee ci ak équipe. ngay joueur wala ngay remplaçant wala loo war a doon ci équipe bi bu entraîneur bi sélectionné ba ñu war a football solidarité nga war a def moo tax nun waa APR bi président dogoo ci loolu nun ñëpp ñu solidaire li mu bëgg ñu defal ko ko. ok parce que yéen à waroon nañ ko mën a une personne plus niveau de son euh, loolu bu ci yàgg li ma ci wax leer na dama ni man ci ñi jàppoon ne waruñu koo jox man waxuma ay âge sax ak leneen ku bokkul APR ndax APR moo am majorité ñi ci des dañoo lang ci oto bi mais ñi jiite oto bi conduire ko. mooy APR ak lu nit mën a wax majorité bi nekk ci parlement bi APR lañu buñ ñu bàyyi woon tey ni ku mu neex nekk kandidaa Moustapha Niass du nekk président bu doon Macky Sall da cee génn wóor na ma ni am na APR yoo xam ne bu ñu yëkkatee ñoom la ñuy fal kon pour solidarité moo tax nun ñëpp. président Macky Sall moo ñu désigné muy vice président yi muy secrétaire élu yi muy euh, ñi nga xam ne ñooy yor commission yi kon li nu def ñun du dara lu dul bu ñu ñëwee ñu entériné li nga xam ne ki ñu jiital te wóolu ko doyloo ko muy liggéey liggéey bu rëy bu rafet Sénégal te nun ñëpp ñu rafetlu ko ñu nekk ci gannaawam li mu bëgg ñu defal ko ko mais li ñu waroon a wax wax nañ ko ñun d'accorduñ ci woon loolu mais sunu kilifa loolu la bëgg. installation treizième législature bi di joxe démission Jean Paul Diaz nee na moom connaissant Abdoulaye Wade xëy na dafa am benn deal bu am seen diggante moom Macky moo tax mu cédé la place. loolu du lu am je respecte beaucoup Jean Paul Diaz suma maga suma xarita noo bokk jukko mais li mu wax na ko retirer parce que du wax bu am makk sal waxul ak Ablaye Wade ñiy gën a jege Macky sal ndax ab lay wàdd moom bu amoon ku war a wax ak moom man la war a doon ndax maa ko gën a jege gën a jege ñoom Madické Niang gën a jege ñëpp ñi ko wër ñoom kër gay mën a wax ak ñoom te billahi wallahi wa taala loolu dara amu ci Ablaye wàdd kay sages la def mag la biñ ko jëlee ñoom waa PDS jàq ak coalition bi ni amuñu kenn koo xam ne consensus mën na am ci kanam pour jiite liste bi dimbali ñu même mënoon na ci saw tur figuré aw turam figure na liste coalition boobu bu doon lay Wade nekku ci wallahi al anzim duñ am juróomi député xalifa leen di raw fuuf Ablaye Wade la ñi ñi nga xam ne xamuñu dara jàpp ne moom day nekk député wala bu ñu ko falee mooy nekk président assemblée nationale te Ablaye Wade tam jeex na li mu waroon a def def na ko ñu ngi ko ciy sant ñun ñëpp ku ci ne def na ci yow dara man de Ablaye Wade suma nijaay Ablaye Wade dama ko respecté Ablaye Wade dama ko bëgg mais maa ngi koy ñaan mu may ma ma toog ak moom nu waxtaan. waxtaan bu sell audience laa ko ñaan public pour mu toog ak man nu waxtaan ma wax ko ni mu war a def pour du taal Sénégal ndax amalu ko njariñ lim defal Sénégal ci démocratie daf koo war a pérenniser yokk ko waxu njabootam ñu ànd ci débat bu dal te pare naa man pour jox ko loxo pour ñu waxtaan ci maa ngi moom. ñu des nañu tuuti ci xalifa Sall boobu nga tudd léegi parce que ñu ne waroon na fekkee installation bi. parce que dès dès lors qu'il est élu député moom instant il bénéficie d'une immunité parlementaire. waaw am na loolu nga wax dëgg la. mais lan moo waral immunité parlementaire bi sunu règlement intérieur moo ko may. mais man jànguma droit duma juge tëjuma xalifa xalifa moo la gën a xam moom ne bu doon man Moustapha Cissé Lo rek la du dem kaso lu mën a def ndax séq naa ko ak moom suma rakk maa ko magi benn at su ma xarita jàmm lañ séq fa mu ne yéenewuma ko ko mais réewu droit lañ ni kuy laaj loolu da ngay laaj ñi nga xam ni ñoo yor droit muy le procureur général mi maître des poursuites le ministre de la justice bi nga xam ne mooy kilifaam lan moo tax xalifa ñëwul mais man mënuma cee tontu loolu awuma tontam. par rapport ak euh, parité bi ko biir assemblée. waaw euh, loolu moom defe naa ne njuumte am na ci ndax assemblée nationale ak assemblée yi nga xam ne dañuy wote yépp Sénégal dafa voté loi boo xam ne parité intégrale la war a doon mooy fu ñu teg benn góor teg benn jigéen boo seetee APR gi ñu moom ñun. xam ne ñoo jiitu ci bureau bi liste bi nu présenté parité la def Moustapha Cissé Lo Awa Guèye Abdou Mbow euh, Aïda Sow Diawara euh, Ablaye maxtar Diop Ndeye Lucie Cissé Ali Lo xam nga ñoon parité lañu ñu respecté ndax set la am mais PDS moo am jigéen bëgg àddina tax Pape Diop mi nekkoon fii assemblée nekkoon président Sénat te ni gëm na Sénégal waroon a doyle bàyyi gone yi ñëw ni moom mooy nekk pré vice président ndax benn lañ am ñoom góor la ñuy jël. kon boo ko gisee ci principe bi violewuñ ko ndax benn lañ am ñoom amuñu ñaar kenn la ñu élire ci seen groupe loolu moo indi décalage bi am mais teewul nag loi bi. ci fond bi wala forme bi am na ci loo xam ne lii njuumte ngi ci mais loolu it mënuma ci wax ndax gannaaw ñépp ko nangu ndax boo jësee bi ñu liiree liste bi non inscrit nga fa sunu groupe nga fa groupe bu euh, euh, liberté bi ma nga fa mais kenn contesté wu ko te ñëpp jës nañu liste bi kon dafa mel ni consensus fort moo ci am walla ak dëgg ci am loolu nag ñi jàng droit ñoo ci mën a tontu mais man jànguma droit li ma gis daal ci forme bi gëm naa ni parité bi respecté wuñ ko. ok ñu ñëwaat tuuti say ambition présidentielle yaa ba léegi wala renoncé ambition présidentielle dama leen a wax nii bu nu demee ba Macky Sall falu 2019 ndax man Macky Sall deux pour cent pour cent la moom <coughs> lay jàppale. ci politique bi ma gis ne mi ngi koy def te jàpp naa ne baax na mooy suma kandidaa mag ku ma déggal deux mille dix neuf dana xeex danaa créer un mouvement bu mag le 6 janvier boo xam ne dootuma taxaw ci ndakaaru ak ci diaspora bi ak ci Mbàkke ak Thiès pour reconquérir réew mi pour que Macky Sall mën a jàll au premier tour mais bu Macky Sall faloo deux mille dix neuf tàggoo naa ak moom ndax ñaari mandat la am droit te it duñ ko may sañ-sañu jéem a xalaat ñetteelu mandat taxawal naa man sama ndënd pour deux mille vingt quatre ku fi man di nekk laa wax ak candidat dinaa nekk candidat mais bala ñu ci àgg dama wax ni bu ma jàppalee mag Sall ba mu falu deux mille dix neuf damay def list ci conseil municipal yépp yi nekk ci Sénégal ànd ak ñoom pour wut une base solide ci Sénégal. ok bu boobaa si ban bannière ko bëgg a wala. non loolu wax du ma ko waxagoon en tout cas mouvement bi moom ci biir APR lay nekk fi mu ne di liggéey mais mouvement boobu ëllëg lu may def mooy nekk socle bi mooy nekk locomotive bi. ok une dernière question euh, ñu gis ni yi ba léegi ñu ngi gis ni euh, frustration yi dafa bëri. Euh, gis nañ fi démission Youssou Touré gis nañ fi Yakham Mbaye euh, yow si loolu loo ci xalaat. jaadu na ku liggéey ci parti bu ñuy séddale ay cër te nga jàpp ne liggéey nga yaaxam liggéey na ndax gañe nañu fi ñu ne Youssou Touré liggéey na fa mu dëkk gañe nañu ak ñeneen frustration bi ñëw na ba département Mbacké ñun dañu frustré ñun département Mbacké ndax 37000 voix lañ am 220 bureaux de vote ubbiwuñu kan mooy responsable deux cent vingt bureau de vote bu génnoon ñu wote Daaru Xuddoos Daaru Minam Jannatu Mawa euh, euh, Madiana ak Gédé fi sunuy candidat dëkk muy Lat sekk ñoom muy euh, Abdou Bali muy Alla Sila ñoom ñooñu wote wuñu ak Mariama Diallo ak Binta Jaxate jàng mais man ngaa wax ni ab élection am na moog làmb yam làmb ji ñu commencé APR dóor ñaari kurpeñ tëpp tëpp tëpp onze heures waa PDS ni élection amul dem yàq élection yi toj ko seet fi ñu amul intérêt lañ dem toj centre yi ñu ñëw ñoom ñoo gagné parce que zone yooyu la ñu dëkk mooy bureau Daaru Marnaan xayra yooyu ñoo wote fa ñu dëkk ñoom seeni candidat ak soxna Astou Mbacké soxna Abdou Abdou Bali euh, Abdou Bara Doli Cheikh Mbacké ñoom ñoom ñoo gagné ci bureau yooyu ñu gagné leen treize mille voix ci zone rural treize collectivité locales dan koo gagné ñoom ñu ni gagné nañu xam nañ la ñu wax amul gagné wuñu mais kan moo a def faut bi loolu président de la république laa koy laaj kan lañ war a sanctionner est-ce que war naa tax département Mbacké ke amul benn ministre département yi nga xam ne yi ñoom lañ jox ministre yi ëpp ñu ñu jëf 37000 voix caaxaan dajalewu ko fanweeri junni ak juróom-ñaar te 220 bureaux voté wuñu bu ñu voté woon 60 quelques mille la ñuy am mbaa di mille kon loolu président de la république mooy sunu kilifa mais ñu ngi ko ci interroger est-ce que ñun dañu mérité ñun département Mbacké bañ a am ministre bañ a am directeur national amuñu dara est-ce que dañu war a sanctionner parce que liggéeyuñu. man li ma ñàkk ci élection yi benn nit bu ko ñàkk ci parti APR amul Dakar gi def naa fi plus de trente million li ma def département Mbacké mat na cent cinquante millions ñàkk naa ko ci inscription yi ba léegi lu ma am falaa laa ko def wax ma kan moo def lu tol noonu wax ma ko dakaar bu ma ci dugalul woon sama loxo duñ gañe man maa dugal sama loxo Padois maa dugal sama loxo euh, Grand Yoff maa dugal sama loxo Sacré Cœur Mermoz yoof Yoff parcelle sax defuma fa mais yii moom dama fab alal ju bëri def fa campagne fa ba ñu gañe dégguma kenn wax ni Moustapha Cissé Lo centram da koo gañee au lamé mais yoof bu dul woon maag Ablaye Ndour da nga def ne kon Ouest Foire ak Nord Foire dañ koy gañe mais ñun ñoo ci def suñu xaalis ak Lamine Touré ñoom ak Kati Cissé ñoom ñi nekkoon ci zone boobu kon caaxaan yi nañ ko bàyyi dakaar bu ma ci deful woon sama loxo duñ ko gagné 3000 mille la ñu rawee man li ma contribué ci Dakar xew gëm naa ne ëpp na torop loolu kon nañ waxante dëgg te bañ naxante naxante baaxul mënoo téye sa portable tëj ko téye sa poste responsable yii fi ne je les défie ku dul Amadou Ba ñeme woo wax ni def nga lu toll ne li ma def ci Dakar amul ça n'existe pas je défie tous les responsables de Dakar ñëpp man maa leen défier te mën nañoo interpeller député yi demal Juliette nga ni ko kan moo ko jàppale demal Pape Seck maire maire AFP laaj ko ku ko jàppale demal dem ci ndey bu Ndour laaj ko demal ci ndey Marème Badiane demal ci Mbaye Ndiaye nañ bàyyi caaxaan mais lan moo tax loolu yëpp fësul mais man li may def dama ko war a def pour lu may fës fësal gi yéenay fësal te man presse bi ñu ci bari dañ ma contre loolooy dëgg gi da ngeen ma contre looloo ci am li may def du ngeen ko wax lu bon rek lañ may waxal. mais que li may wax du affaire communiquer li may jëf maa ngi koy jëf ci CEDEAO CEDEAO dama koy yëkkati parlement bi ba président yi di ko wax ñi fi dem bari na ci ay journaliste mais li may def ci ay roq lañ koy waxee am na ñooñ buñ ko rombee sax dañuy dem Togo maa fa dem calmer ya fii dix jours. li jours ma jàmbal fekk na ma fa xam na li may wax wax ak nit ñi wax ak opposition bi luñ ko wax ñi ñu tuddee ay panafricaniste luñ fi def fii am na ñoo xam ne au niveau international dem nañu wuti ay poste amuñ zéro voix lañ am man unanimité lañ ma fale quinze états yëpp dañ may tàccu moo tax je suis à l'aise appui laa def parce que bu dee Sénégal xamuñu li ñu am ñeneen xam nañ ko maa ngi jëm Niger maa ngi jëm Bénin Maroc même chambre des représentants pour seen négociation ak CEDEAO man la ñu invité je serai là-bas du 14 au 18 octobre man damay sant yàlla yàq gi ñuy yàq di yàq suma der yàlla danañu atte parce que Sénégal a ngi fi nit ñu dofuñu nañu bàyyi rek bu dee manees naa jaay ñoo xam ne du ñu dara ñu ma gis ñu leen di tendre micro dem nañu ay élection di leen tuddee député peuple ki leneen plus fort reste sax amuñu ko te fu ñu dem ñu jox leenu micro may président parlement CEDEAO bu ñëwee fii dañ may rom di premier vice président di membre du secrétariat exécutif créé APR xam ne man bu dul woon man APR du gagné cent mois APR na gagne pas waaw bu dul man APR bu buy dem deux mille dix neuf bu ma génnee mu dem deuxième tour barke Rasul lay kon man leader incontesté la Macky Sall nag dama bëgg a wax lu leer moom laa àndal je suis son serviteur fi ma war a teg moom xam na ko teg na ma suma place moo tax ma koy sant. di sant soxnaam ci considération biñ ma jox mais nag du teem a wax ak ñeneen ñiy def ay jeu ak di tappale te duma seen morom nañ xam ne duma seen morom fii bu Macky sal jàllee ci kanam lan jëm danañ xam ba xam man maay kan Dakar élection 2019 on saura qui est qui et quoi et quoi 2019 danaa samp ndënd pour conquête de la mairie de Dakar kon gars yi nañ préparé xam ne Cissé Lo ngi ñëw dal seen kaw foog na leen merci sa kàddu gu mujj monsieur Diop si seeloo ngi ñëw dal ci kaw waa Dakar responsable yi yàlla na yàlla defal jàmm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim